Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance que vous voulez, merci de vous like, merci de vous abonner, merci également gars hein, de baisser les commentaires, un plaisir vous nous chaque fois de partager des information. inbox sénégalais fait pour les maintenir 14 régions du Sénégal, adna won ngel kep wa diaspora ñi ngi leen di jaajeufal ñi nek également ci de hôpital yi sécurité du février yalla suñu borom fëgg seen bop ñu wër Il ñi nek kasso yi ngeen xamni aussi erreur judiciaire gi ñen dañu deful suñu borom gën leen fa delu waat leen seen njabot que dodo adna suñu borom xar leen adina fi do ci gaay té yéxé ñu on avance ensemble dans la magie de Sport TV, l'actualité en compte continue hein. actualité ñu fas yéene waxtaan yi nga xam donc Chelsea mi daal di ndërmeelu waat Habib Diallo Abdou Diallo plutôt qualifié en finale Coupe d'Allemagne et également le Real de Madrid qui offre le sacre de la Liga espagnole au FC Barcelone mais la boobu gars bu len faté bëss len ci lien boobu nonu ngir abonné ci Baba Show dugal naa fa vidéo portrait Amara Diouf mais aussi bëss len ci abonné ci eSport TV ki nga xam ne donc ki di Busquets Sergio Busquets gars dañ ko laaj tay bu match bi jexé moom nak fi hein, fii euh, semaine yi di ñëw dina daal di joxé décision xalaat nañ xam na li mu war dafa paré ba il faut rek mu daal di communiqué entraîneur bi ki nga xam ne nag mooy Matteo Almani kii directeur sportif bu Barça gars yi tremblement de terre day jóge ci FC Barcelone moom contrat am nag ba 2024 la woon waaye dafay jóge Aston Villa la jëm li waral demam nag gars yi ne nañ ñàkk déggoo la ak ñi nga xam ne mooy donc staff bi parce que moom dafa am yenn joueurs yoo xam dafa ne woon dañ leen soxla ku ci mel ne Aspilicueta et tout gars yi bañ ñoom Jordi Cruyff daal Cruyff daal yi bañ mais moom finalement aussi mu toog gis intérim Aston Villa ñëw defal ko proposition bu gën bi ko Barça defal mu daal di dem kan moo koy remplacer l'ancien directeur euh, sportif euh, bu ki nga xam ne mooy donc ñii di waa euh, Real Betis Séville moom mi nga xam nag démissionné woon na temps yee boobu nag nekkati moom li muy démissionné yëpp gars yi dañ jël place ki nga xam mooy Elmani Elmani bi nga xam nag am contre am kii di Lampard Lampard daal gars yi la lambe, Lambul Balde Lampard goul, lambul làmbul caax làmbul Lampard Lampader la lambe, gars sixième défaite pour Franck <laughs> Lampard sixième défaite pour Franck Lampard de yi Hein? six la défaite hein. trois buts à un ah donc daal ça y li mu làmp moom euh, li mu li mu li mu li hein. mu làmp de. Lampard moom li mu làmp donc trois buts à un mais également moom bu fekkee moom li mu làmp tàqul waaye keppaa tamit li kepp li mu kepp keppul keppul loxo yi léegi nu mu toll gars yi lañ génne quoi léegi keppaa boobu tey jëlaat na ñett ñett yu saf sàpp la keppaa daal di jëlaat ah ne nii moom keppul de gars yi naan keppaa keppul donc euh, Chelsea encore dans un sale drap comme ni ko mënee wax ñoom daal xam naa ne compétition européenne yi moom dayoon duñ ci bokk tax na sax fi mu ne nii gars yi commencé wax naan Edouard Diol ko moom biir na gore Mendy jot na nag ah jot na nag ñu jox ko chance am gars yi ñu ngi koy kaas fi ne jot jox ko chance am parce que

ba pare moom moo leen dóor ñoom donc actuellement daal le yi euh, Manchester bu tout se passe bien Manchester City bu amul euh, benn faxastal euh, dina metti pour ñi xam ne donc Arsenal mu daal di jël kii di également Wilfried Zaha courtisé par le FC Barcelone mais aussi ñi nga xam ne mooy donc équipe yi nekk ca Angleterre am ñu koy courtisé ak aussi Marseille Olympique de Marseille aussi bokk na ci ñi nga xam ne daal fi mu ñi ngi entrer en contact avec Wilfried Zaha Arsenal aussi intéressé parce que nga donc euh, Wilfried Zaha aussi qui nga xam ne mooy Thiago Alcantara malheureusement mom saison bi jeex na gars yi nañ blessure bi am bu may tout ce sera également euh, saison fini terminée pour qui nga moy donc Thiago Alcantara qui nak également ah Malay Diagne euh, l'ancien joueur donc sénégalais de championnat sénégalais Malay Diagne nak ah, de de Jàmbaar fi mu ne dañ ko aale équipe boobu ko aal nak tay la donc premier but donc depuis bañ ko aale foofu ci mois de mars momit c'est un gosse bo xamni il est en progression RB Leipzig de Abdou Diallo et également de Babacar Ndiaye, qualifiés pour la finale de Coupe d'Allemagne. Ils vont pouvoir défendre leur titre. Taïno Dadi gagné 5 le Abdou Diallo est entré en cours de match. Momi nga blessure Miko ko éloigné mo taxone mu place de tutelle à RB Leipzig. Finalement, ni nak donc mi au moins remplaçant un des soldats de Aliou Cissé également un des euh, dignes fils du Sénégal ndax ki dafa gëm Sénégal dafa bëgg Sénégal Abdou Diallo dafa wàcce bofam bo gisé nga commenté benn affaire sax ci Facebook dara tam day day tontu ci yenn ki Kubo Kubo dal gars tay tey mom Koubo. Kubo. Euh, malheureusement ils ont été battus 2 buts à 0 donc aujourd'hui parce que également Kubo moo daal donc ils ont hypothéqué leur titre de champion parce que waa Barcelone Gaï actuellement match bii di Espagnol de Barcelone lay doon donc mu nekk derby classico derby de voisin donc, bu Barça dóore le Barça aura remporté la Liga espagnole L'ol c'est sûr Real actuellement le euh, Barça a rawee 14 points mais attention également parce que le gars il suba suba bu euh, ah, deuxième place Le Real va tout perdre le Real risque de tout perdre et ça c'est phénoménal donc le Barça est presque champion d'Espagne ah, mais avec aujourd'hui encore. Euh, le retour de Xavi ils y ont ils y sont arrivés gars yi woy leen di like woy leen di abonné bu leen fàtte ci cloche de notification pour d'autres vidéos en exclusivité Dès le bës lien bi dem abonné Baba Show def vidéos vidéo Amara Diouf exceptionnel histoire